1949 50 lañ ko sant jusqu'à présent fii la jàngee fii la ñuy fii la yaroo lu ñuy am it fii la ñu ko indiwaat wóor na ñi ñëpp kon ku ñuy jàppale ci loolu ñu jël da ngay xool 1960 ba Sénégal amee indépendance ba léegi musuñu am maire bay am adjoint maire si talam bi ñu am ministre ñaari directeur lañu mos a am ci li ma fekkee El Hadji Diouf directeur du commerce intérieur Maodo Mbaye directeur général aéroport jeex na tax dégg nga li wax nee na musul am député te jot na nag wax na cinquante mille fu ñuy yàlla fa di fa yeewoo war nañ mën a am lu bon bon bu tane école bii la ñuy jàngee bët ci démb lañ ko defar wax na dëgg ku gañ mooy la gañee nit na parti gañ Thiès kooku moom amul wax ma dëgg mais politique politicien bi dañ cee sonn dëgg rek a nekk yàlla dañuy ñëw dig ñu wax ñu ñu def ñu ne fes kër ga la di ma jógi set loolu nag doxul nit bu ñuy ànd dañuy ànd ci mbar day def na sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si doo wax rek laa wax xam nga yan bu la yàlla yanul ñiy seetaan ñooy njëkk a taay yi te boo fi bëri ñuy bii présenté na tey je pense depuis say ngir xale yaa ngi lay kon yan dafa ne yàlla moo la yan waxin na waxin na xam xayaan ku dégg séeréer moo ne xaw waxal kon politique dafa am yoon nit ñi dañoo sonn ci politique homme politique ak politicien du benn man je pense que les politiciens yi ma gis homme résultat nga soxla lu baax nga bëgg jox ko nit kooku mooy am politique politicien mooy naxaatekat yi ñu nax sonn nañ ci nax kooku il faut ñu bàyyi ci xel dégg naa léegi sama jarbaat Maguette Diop wax na dëgg bis bu nekk ma jàppanteeg ñoom ñetti ñu ne ñuy tuuru ndox yi amuñu koy tuuru fajar boo ñëwee ci ndox ngay poto poto ci télé yi jaar

xam nga politique mu tourné jàppal ñu jàpp moo am mais jàppal yow rek amatul da ngay téye ñu téye Cheikh nag ah jar bu neex a nekkal la parce que loxoom bu seetee mag su gisee tey mu téye ñu fi sànq wax naa la ko téléphone sama njaboot nekkul ñu fi ginnaaw yàlla sa bakkan moo fi téye ndax la ñu jaaree ko Cheikh kon nag ñu ngi leen di ñaan une fois de plus si téléphone ngeen bàyyi ci xel. mais quartier bu màggat la mais quartier bu doy waar la. mais dafa dañoo doon ay jeunes am nañu métti Salamine mooy da ngay génn dem beneen quartier boo nee Salamine laa dëkk rek ñu ne moytu leen ko woyu la day jaay yàlla baax organise c'est pas vrai si jeunes yi fi nekk suñu yaay dañuy xëy fajar dem liggéeyi ñun ñu koy dem jàngi mais suñu diplôme yi amuñu kenn koo xam ne mën nañu wutal baraanoo pour au moins bu ñu amee suñu diplôme yi ñu mun a dimbali suñu yaay yi leen parce que imagine. nga dugal sa doom deux ans jardin yóbbu ko primaire ngeen dem collège lycée mu yor ay diplôme am toog du chemin loolu dafa ñaaw. asalaamaaleykum waa Cité Lamy. maa ngi sant délégation bi ma àndal. di ko jiite mooy monsieur Ousseynou kii mooy yaram jigéen kii moo yaram askan wi kii mooy Ousseynou Diouf. ngeen xàmmee ko dawul ànduwul. Ndam rek la jëm maa ngi sant délégation bi ma Soxna Ndeye Diallo ànd ak madame Anta maa ngi ànd Touré ànd ak Ndeye Ami Kër Babacar Fall rafet yi développement moo xew en tout cas du ñu jigee dara parce que Ousseynou dafa nekk ci yoon yoon woon la bëgg a pour lu ñu ci développement ci jigéen nga ñoo fi allah Ousseynou Diouf day soog a jóg mënul dig kenn dara waaye lépp lu ngeen soxla ci àdduna bu soobee yàlla tant que yéen a ngi ànd moom di ci am lu kala seen yoon. bi ñu ñëwee fii ci jigéen ñi nga xam ñoo ànd ak Ousseynou Diouf ñun réseau des femmes la def réseau de femmes boobu la ñu bëgg Cité Lamy yëpp ànd ñun. ñu mën a am recherche de financement parce que am nañ ci suñu ginnaaw ñu ñu mën a jàppale ci ay financement ànd ak tey lañ fi soog a ñëw yéen a ñu soog a gis. mais incha allah dinañ ci dellu si ba wax leen ba ngeen mën a am ay financement ba si talamin génn ci situation bii. fekk naa fi ay doléances yoo xam ne ñu ngi koy wax soo leen paree bu jàppale Ousseynou Diouf yéen ñi fi dëkk waa gox bi kii ngeen di jàppale kii ngeen jàppale kii boo leen ko moom mooy jàppale Ousseynou Ousseynou valoriser ko ko li ngeen di jàmbat a kii moo soxla am na a loolu mën a nekk. parce que mbedd mi gudd na trop te ñu nekk benn trop ñii ñu toog fii loolu mënu kenn mënu yéen ñu toog nii loolu mënul rek kenn mënu tey Ousseynou bu taxawee ñoom fekk si leen yaakaar naa ne ngeen bëgg a def lépp wax koog moom dañ koy awale ci Cheikh ndax mu yomb ci moom ndax waxtaan nag dëgg ca la xale am na lu mu am na fa mu jëm mais dafa soxla gox bu nekk am na fa nekkal loolu nag mu ñëw jàpp te jàpp googu man li koy jàppale bu ñu jàppale ci lay bokk soo gisee Ousseynou boo ko gisul ñëwal ci man loo soxla boo gisee Ousseynou ñëwal laaj ma ko man pare naa jàppale la jàppale ñi nga àndal à travers Ousseynou bi am naa xalaat yi am naa idée yi te yàlla dégg na ma as tuut loo xam ne dina naa ko jënd te loolu xam nga dara loolu dinaa ko def ndax Ousseynou. waaw loolu loolu te mën na ko koy def parce que man saa la xaw ma benn yoon ci dëkk bi ne naa engagé wu ci kas kenn mais moom mu ngi nii toog te fii laa ko waxee fii laa ko njëkk a waxee engagé à à à sa côté ku ko jàpp ma jàpp la ku ko bàyyi ma bàyyi la li ma yor nag xam naa ni kees la ko moom kees la ko bopp mais tey ci kanam jël naa leen dugal leen ci biir à travers seen dugub. waxal loolu sa tool. te kenn moo ne boo leen ñëwee di ngeen ci gis seen bopp boo leen ñëwee di ngeen xam ni ko seen bopp boo leen ñëwee di ngeen wane naa ko tey bu sama kàddu jox naa la. waaw su fekkee tamit maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp. talal naa leen loxo góor ak jigéen mag ak ndaw. talal naa balaa ngay jóge fii jigéen ñi nga xam ne ñu ngi defee ay mbootaay. ñoom Maguette Diop ñoom Tulle ñoom ñooy seen président bi bëgg naa nga jàppale leen bu baax a baax boo leen jàppale mën nga jàppale te damaa bëgg balaa ngay jóge mais jàppal leen pàcc boo xam ne ci lañ ñëw nga jàppale leen ba seen loolu man maa la koy ñaan parce que dañoo sonn ci man saa ma wootee ñu wuy ma fu ma leen woo dañ may wuy si muy guddi muy bëccëg maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla na yàlla leen guddal seeni fan ñu ñu baax ngeen kon bu ñàkk ñaan ngeen di ñaanal sama danse yi bu baax a baax a baax Ousseynou maa ngi lay ñaanal foo a àgg yàlla na la fa yàlla àggale ci barke suñu fan. tey bu ñu teewee Djiby Sénéane moo ko waral ndax Djiby dafa nekk kenn ci ñun muy un vrai Thiessois ku gëm dëkkam gëm koñam euh, mën a sonn ci nit Djiby daraam saf ko daraay nit ñee ko saf euh, bi ma waxee dama dafa am ku koy seet si ma ne il faut ma teew ngir mën a wax ak kii seet si ji bi tournage lañ jógee ci suba ba léegi ñu ngi tourné dañ koo dagg pour mun a ñëw teew. yàlla na la yàlla may kattan boo mën a naane sombi bi nga sombi yàlla na la yàlla rafet ceeb mais nga la ji nii. naw nañ ko lool naw nañ ko lool naw boobu nag dama bëgg yow nga ko ndax andil ma leen nit am yaakaar ci nit kooku yàlla ko yaakaar boobu tas maa ngi di gërëm maa ngi leen di ci seen tur ak ci seen sant di am mbégte. ba nga xam ne am naa fu mu tàmbalee waaye xaw ma fu mu yemee Cheikh maa lay biral ni vraiment su ma xol sedd na mbooloo mi nekk mbooloo mu am qualité la mbooloo mu riche la li ma doon wax yëpp gis naa ko yaakaar naa ne fii bërëb bi doo fi gan ñëw naa fi ñëwaat fi ñëwatee na fi tey boo leen gisee tax ma jóg dama na woon sax bàyyi ay meeting ay rassemblement yu mel nii waaye boo leen gisee li tax ma jugaat jëmm ji moo tax comme Cheikh dinaa ci ñëwaat léegi balaa may sori ma sant bu baax ma ak fi sama yi ñaawul yi mati lim na leen sant maa ngi leen di sant di len gërëm gis naa coono gi ngeen di daj ci man aw ma seen fay yàlla leen yàlla fay bu ma santee suma ma mbokk jigéen ñi ma sant kilifa yi nga xam ne fekk naa leen fii ci biir Cité Lamy ñu ràññee ci tonton Mbaye Sow dama bëgg ngeen tàccul bu baax tonton Mbaye Sow ndax kilifa bu bu dëkkee yéen xamu ma ko miin ma ko téléphone lañu waxante sànq mun ma dinaa ñëw bokk taxaw ci sant yi ma sant tonton Mbaye Sow Jibi Soñaan aw ma fayam suma mag la suma xarit la nit bu engagé nag ba nga xam ne maa ngi ko njëkk a xamee ci wàllu ndam si yàlla Mamadou Dieng tey jii moo wootee ci biir koñam mu ñëw taxaw jàpp ci te bi amul benn xolu maa ngi koy sant di ko félicité di sant Modou Anta suma rek suma xarit di sant Ablaye Sy Habib Kane man mënut ma ko sant ndax Habib li ma waxal ci lu baax yëpp ci moom lu la nekk yéen jigéen la ni maa ngi leen di booleeg Habib dama leen koy delloo Habib dafa indi la nga xam ne lu ñu réseau réseau mooy d'abord dimbalante yéen si seen biir mais d'abord loolu pour mu war a nekk il faut que ngeen organiser def na ko ranu leen affaire bi commencé naa yaatu ci biir Thiès ci mbaaxaayam mu jub sol dàllam ànd ak man di ma jàppale ak ñi ma àndal kon Habib yal na la yàlla fay di sant sunu caatkat yu baax yi mooy waa Kajoor Jankeer Bapal Ndey Si Bella ñoom dañ leen di sant di leen di kontaan ci seen teewaay ndax ñun Cees waa amuñu lu dul suñuy star man damaa nekk régionaliste ba nga xam dama bëgg saa yu ma taalee télé waa Cees laa koy gis ñuy gàtt la ñoo leen di encouragé maa ngi doog a gisante ak yéen jii nii ndax jëmm ji di soñaan mais incha allahu rabbi jàpp naa leen ndax li ngeen ma defal xam naa ko bu baax xawuma leen xamoon leen ne ngeen bàyyi seen soxla ñëw ci programme bi maa ngi leen ci sant te insha allahu rabi dinañ collaborer di wax waa Cité Lamy ñun doomu Thiès ñun ñoo mën a mayante suñu biir xaalis mu di lan ñun ñoo war a mën a jàppalante suñu biir man du ma politicien loolu Mbaye Sow sànq wax na ko li ñu tax a mooy defar dëkk bi. jamono nag dem na ba nga xam ne tey jii boo jógee ci politique ak ñeneen ña cay rax dañ lay yemale ak ñooñu ñu loolu taxuñu jóg bu doon loolu yàlla mu ñuy suturaal ñu yem ca loolu mais may nit ki chaque jour xaalis may nekk bi du la du la jëriñ dara naa leen jàngal ni ngeen di amee xaalis loolu moom mooy politique keneen ku leen wax loolu da leen di dañ leen fexe ba teg leen ci yoon ma nga xam ne boo leen gisee ubbi ak boo leen gisul poussé wu di ngeen mënal seen bopp yoon boobu nag boo leen ko nekkee ku leen ko fekk jàppalal leen fekk na yéen nekk ngeen ci dara ba pare te incha allahu yi bis mi ko tey dinañ ko tàmbale ndax ba tey maa ngi fi ñëw musuma fee wax waxu engagement politique dama doon ñëw rek doon jàppale ak xale yi mais comme ñoom am nañ jël nañ seen décision léegi ñoom seen bopp ñoom sama ginnaaw tey jàppale président Macky Sall dinaa ànd ak ñoom ci lépp ci lépp jàppale leen soxla yi nga xam ne man mun naa koo faj sama wàllu bopp dinaa jël engagement yi politique nag bu neex damay digal loolu mënul am na la nga xam ne état rek ko mun lu mel ni defaraat koñ bi defar ay puisard indi fi ay tali état rek ko mun politique bi ñuy politique nag daf ñuy may tey jii kilifa yi nga xam ne ñoo ngi bokkoon ñoom te ñoo jege président Macky Sall. ñu war leen jumtuwaat Thiès jumtuwaat Cité Lamy ba programme de développement yi ñuy indi ci biir Thiès waa Cité Lamy ngeen mën cee gis seen bopp. président Macky Sall commencé na ko fii ci biir boo demee EFSA li ñuy wax Promovilles tay sa jaar ñoo ngay defar prison yi mais pourquoi pas fii Cité loolu nag yi ñu koy may moom mooy engagement bu mot sëkk ñu jàppalante woon président Macky Sall ne ko ñun ñoom yow la ñuy jàppale. bu ko defee mu mu mën am confiance yokk programme yi mu dugal fii biir Thiès te bis mi nga tey buñ ko diggee kilifa bi dina ci jot insha allah rabbi Cheikh sant am nga loo ma ñaan ne ma ma la Allah jigéen ñi sànq woo nga ma téléphone ne dañuy faral di ci ay activité yu loolu maa ngi koy def ngir jëmi Cheikh mii boo leen ma ko waxee boobu leen ma ko waxul xam naa Cheikh li muy liggéey ci biir koñ bi xale bi waaye xale bu loxo bu setee mu mun a ànd ak ay mag yéen waa li ma leen di ñaan moom mooy jug ngeen laxasaayu jàppale son excellence le président de république président Macky Sall. ñu di ko topp parce que tout simplement dañoo bëgg poste wala dañoo bëgg dara dañoo jug di ànd ak président Macky Sall parce que kii defar dëkk bi te moom laa ñu kii day defar dëkk bi ñoom a yegg ci kii amul benn président bu ko mos a fi ñëw ne kat am amu Sénégal dinaa fexe ba nga xam ne dañoo néew doole di ci jot. kon nag kooku def loolu bu ñu ko a neex dina a yokk la mu def kon dala jàppale leen président Macky Sall encore une fois de plus wax ji ni mu ne ndax doon guddee maa ngi leen di sant parce que depuis cinq heures yéen ngi xaar na yàlla moo defoon moo tax yi ñu waroon àndal ñenn ñi am ay retard yu toogoon doo xaar seen pas-pas nag moo wane depuis cinq heures ba tey ngeen toog di xaar te lii ngeen ma ji incha allahu rabbi dinaa leen ko fay ba mu mat ndax moom bisu liggéey rek moom moo taxul di leen sant encore bu baax di nuyu kilifa yi ñu fi fekk di sant waa koñ bi di sant ñii nga xam ne déplacé wu nañu ñoom ci jotaay bi te si la ne rek tax leen a di sant jigéen Cheikh di la sant bu baax a baax a baax bu nu ma laa fay yàlla na yàlla fay yow ak sa jigéen yi nga àndal ak sa xarit yi nga àndal ak waa koñ bi yëpp. li ma la wax moo di jël naa engagement Habib nee na nee na ay këyit ay compte bu lu bokk ak matériel bi may jënd dinaa ci def sama xaalis. bu ko defee ngeen laxasaay yéen jigéen ñi soxna Mati Ndiaye ngi nii femme de développement la jàppale ay jigéen ñi mën a seen bopp rek ko defee. ñii ku leen xool xam na ne ñoom tàllalu ñu kenn loxo xaaruñu benn président kon nag ànd leen ak ñoom ngeen liggéey Sénégal jëm kanam maa ngi leen di sant di leen yàlla leen yàlla fay wasalaam